mbokki jullit yi gannaaw bi nu sant yàlla suñu boroom cant gu yelloog jëmmam ju tedd ju màgg ja julli ci sangu-sang yi muy seyduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dellu si waat nañu ànd ak ci seen tafsirul quran tey nag ñu ngi suratu naxli aaya quatre vingt foofu la ñuy tàmbalee suñu tafsir ñu mboolem ñi nga xam ni ñoo toog ànd ak ñun ci tafsir bi rawatina waa Safina TV ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen taxawaay ci diine ji seen taxawaay ci tafsir bi ci weeru koor bi maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaxin wala yajziyanna alladina sabaru ajrahum bi axsani ma kaanu yaamaluuna ay bi yàlla dafay wane ni doomu aadama lépp lu nekk ak moom dafay jeex bu dee alal bis dina ñëw alal ji jeex walla nga dem bàyyi fi alal ji bu dee kàttan bis dina ñëw kàttan gi jeex wala nga dem ànd ak kàttan nga lépp lu la yàlla jox daal pour àdduna xamal ni bis dina ñëw loolu moom nga teqalikoo moom walla loolu teqalikoo ak yow kon na nga fexe ba bu teqalikoo bi dee am booy teqalikook loolu mu rafet bu loolu dee teqalikook yow mu rafet moo tax buur nee na maa indakum lépp loo xam ne mu ngi yéen fii ci àdduna yéen fa du dafay jeex ak lu mënti doon wa maa la nga xam ni moo nekk fa yàlla nag baaxin aji sax la du fa jóg mukk buur ne wala yajziyanna yàlla ne danaa fay alladina gaa yi nga xam ni sabaroo muñ nañu ba man a matal wëllëre mën na muñ nañu ba man maa topp muñ nan ba bu ñu amee alal du ñu béw génnee ci azaka ñooñu dana leen fay ajaroom seenu pay danaa leen ko fay bi seeni maakaanu kaanu yamaluuna ci lu gën a rafet nañ daan jëfe noonu laa leen di fay bàyyi na loolu mi ngi wane ni képp ku def lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen nga yàlla ne danaa la ko fay te دنالا تابل الجنة مدبور من عملا كو خمي جفنا صالحا جف جيو من ذكر مو خم غورلا او انسا ولا موي جيجين وهو مون بمي جف جف جا دارا تخول مو جفكا خنا مؤمن دفا گم يالا بورينا فلنحيي انه جف جوجو دنا نيوكو دوندل اك بروم حياتن چيك دوند طيبه كو تاي nee na kooku di jëf-jëf googu ngir man nee na bu dee ci àdduna danaa def ci moom alxanaa mooy doylu danaa def ci moom tamit wërsëg wu mu fàggu muy lu dagan bu ëllëgee yomal xiyaam mu dugal ko àjjana loolu mooy fale nox yi yenn woo danañu ko dundal ci ñaari kër yépp muy àdduna ak àllaaxira bu dee àdduna danañu ko may doylu may ko wërsëg wu lew bu dee yowmal xiyaam ñu ko may àjjana moo tax mu ni fa lanuhyiyannahu ñu ko dundal xayaatan dundu tayibatan gu teey wala najziyannahum danañu leen fay wala najziyannahum dana leen fay ba matal ajruhum seenuk pay bi ahsani ma kaanoo ci la gën a rafet nañu nekke woon na di ko jëfe bàyyi na loolu mi ngi wax ni nit ki boo bëggee jàng alquran bul tëb tëb rek jàng balaa ngay jàng na nga muslu ci cheytaane loolu lay wax balaa ngay commencé di jàng alquran na nga wax a billahi min cheytaani rajim moo tax mu ni fa ida qara'ta su fekkee bëgg ngaa jàng alquran alquran namm nga ko jàng fa ida qara'ta su na nga muslu billahi ci yàlla min cheytaane ci cheytaane arrajimi cheytaane bi nga xam ne yàlla moo ko dàq ci yërmandeem da nga wax aouzu billahi min asheytaani rajim innahu neka moom cheytaane laysa lahu déet di ko ñeel sultaanun benn cër amul benn cër ala ladina ci gaa yi nga xam ni amanu gëm nañu yàlla ku gëm yàlla cheytaane amul ciwu cër mënul la dara ba pare wa ala rabbihim ñu gëm yàlla ba noppi wa ala rabbihim ci seen boroom yatawakkaluun la ñuy wakkilu de يلا بخوان نكون ننكو إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سوى جامي منوشيهم مدعموني ഇന്നോനക്കമോം സേറ്റാനെ ലൈസലോ കുഞ്ഞ് ലൈസലോ ഇന്നോനക്കമോം ലൈസ ഇന്നോനക്കമോം സേത്താനെ ലൈസലോ കുഞ്ഞൽ സുൽത്താനുൻ ബെനുദ്ദോളി മുയിച്ചിർ അലല്ലതിനിച്ച് ഗായങ്ങ ഹംനി ആമനുഗം നിഞ്ഞല്ല വാലാ റബ്ബിയും ചിസേൻ ബറോം യതവക്കലോന ലഞ്ഞി വക്കീർലു ഹംഗ ഞെല്ല മുനൽ ഡറ ഇന്നമാ സുൽത്താനോ ഹമൽനി ഡോളി ഷേത്താനെ അലല്ലതിന ദന ജപ്പ് ഗായങ്ങ ഹംനി yatawallawnahu ñoo koy topp gaa yi nga xamni ñokay defal limu bëgg ànd ak mom ñoñu ci ñoñu la am katan walladina ak gaay nga xamni mom ñom bi ci yàlla mushrikoona dañ koy bokalel ñooñu dee cheytaane mën na ci ñom dara iza badalna bu ñu ayatan ay alquran makana ayatin benen place ay suñu defé nasikh ak mansukh wàccee benn aaya ba yàgg ñu folli ko wallahu yàlla alamu xam na bi maa yunazzil li mu wàccee xaaloo ñoom yi fiiri dañuy wax ca folli googu yàlla folli aaya boobu su yonent bi ne bii aaya folleeku na yéeféeri dañ ko wax innama anta xamal ni yow muftarin da ngay duur da ngay wax yépp yaa koy fent waaye yàlla waxu ko de yàllaa ngi tontu yàlla nee na baal li fi nekk aktaruhum li ëpp ci ñoom yéeféer yi laa alamuuna xamuñu dëgg-dëggi alquran de xamuñu tamit njëriñu naasix ak mansuux foo gisee naasix ak mansuux yàlla day wàcce benn atte jekk ba yàgg moo xam ne atte bi diis na ci jullit ñi mu wàcceewaat beneen bu ko gën a woyof pour rek ñu mën ko jaamu mën ko jege looloo tax mu ni ball fi nekk aktarum li ëpp ci ñoom yéeféer yi laa alamuuna xamuñu dëgg-dëggi alquran ak njëriñu naasix ak mansuux xul waxale yonent bi ñu leen man fentuma ko nazzaloo wàccee na alquran ruuxul qudsi ruugu sell ga te mooy jibril min rabbika mu jóge fa sa boroom bil xaqi wàccee na ko ci dëgg lii sabbita ngir na sax alladina gaa yi nga xam ni amanu gëm nañu ñu sax ci ngeen gëm ga ñu gëmoon yàlla wa hudan alquran nekk njub wa bushra alquran nekk mbégte lil muslimina ñeen li nga xam ni dañoo gëm yàlla de waye batay tey wala xan naalamu xam nañu ñun yàlla annahum nako ko ñoom yéeféer yi yaquluuna danañu wax saayu alquran wàccee innama yu'allimu xam leen ni alquran ji yonent bi di wax am na koy jàngal ki koy jàngal nak basharun nit la rek dafa am nasaran buy ñëw rek diko jàngal alquran lis lol nak moy lisanul ladhi waxi gaa yi nga xam ne yulxiduuna danañu jéng ilayi ci alquran ñeen ñi naan ajamiyun ajam la alquran wa haada yàlla neen alquran ji du ajam lisaanun làmmiñ la ñu ngi ko wàccee ci lisaanun ci làmmiñ woo xam ni arabiyun làmmiñu arab la mubiinun bu leer bu am fasaaxa ci lañ ko wàccee de comme ci làmmiñu arab la arab bu leer bu am fasaaxa nan la ko aba ajam di jàngale yonent bi munul nek muni innal ladina nak nag gaa yi nga xam ne nag laa yuminuuna gëmuñu bi ayati laayi ci alquraanu yàlla ji yadimu yahdihumullaahu yàlla du len jubal wala wum ñaan na leen ëllëg yowm alqiyam adaabun mbugal alimun bu metti inma yaftari xamal ni dana dur alkaziba fen alladina gaa nga xamni la yu'minuna yuminuuna gëmuñu bi ayati laayi ci alquran yàlla ji ñoñu ñoy fen ulaayika ñoñu hum ñom alkazibuna ñoy narkadi te moy fen yi de bàyyi na loolu mi ngi indi beneen atte mooy koo xam ne dañ laa forcé nga weddi loola yàlla fekk biñ la koy weddiloo sa xam ne sa xol dafa gëm ak ki nga xam ne nag dafa weddi yàlla ci coobareem ñoo lay wax mu ni man kafara képp koo xam ne weddi billaay ci yàlla min baadi imaan yi gina bi mu gëmee ba noppi kooku yàlla ne dinaa ko mbugal mbugal mu metti illa man ukriha lu dul koo xam ne dañ ko forcé ni ko gëm weddil boo weddiwul ñu rey la mu ni weddi naa fekk bi làmmiñ wi dee naa xol ba ma nga fees dal gëm yàlla mu ne kooku yàlla ne duma ko mbugal ko illaa man ukriha lu dul koo xam ne dañ ko forcé te fekk bi làmmiñ wi deex wa dinaa waxal boo xolam ba mutmainun ma nga dal ma nga fees dal bil imaani ak ngëm yàlla mu ni walakin waaye man koo xam ni sharaxa ubbeeku na bil kufri ci weddi yàlla sadram ab dënn koo xam ni dënn moom dafa weddi yàlla moo ko tey weddi fa alayhim war na leen xadabun sore gi yërmande minallaahi ku bàyyi koo fa yàlla wala hum ñal na leen azabun mbugal azimun bu màgg lu tax zalika li tax yàlla di leen tekku tekku yooyu bi annahum naka ñoom istahabu gënal nañu alxayaatu dunia dundu àdduna gii di jeex moom la ñu tànn alal axirati ñu teg ñu gënal ko ci dund gi nga xam ni mooy des te mooy dund yowm alqiyaam wa anna laa naka yàlla laa yahdi du jubal alxawma aw nit alkaafiriina nit ñi nga xam ne ñooy weddi yàlla ulaayika ñooñu alladina mooy gaa yi nga xam ne tabaa kasta na mooy tëj na allahu yàlla ala xulubihim ci seen xol yi dootuñu gëm wa samihim ak seen dégg ya dootuñu dégg dëgg wa absaarihim ak seen xoolukaaya seen bët ya ñu gis dëgg wa ulaayika ñooñu hum ñoom alxaafiluuna ñooy ñi nga xam ne ñoo sàggande la jarama amul benn werante wala nga ni laa jarama ci dëgg annahum ñi ka ñoom هم يوم الخاسرون يوم يبتدى صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله من الصبر الكريم ونحن على ما قال ربنا وقال قلنا ورسولنا من الشاهدين